jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yi def dara démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci beneen laaj bu asahabatul kiram laajoon sallallahu alayhi wa te jëm ci seen mbiri diine te mu jëm ci wàllu lekk laaj bi jëm ci wàllu lekk waaw yàpp yeeg yu ne demee surtout ci la laaj bi jëm moo tax bi bi muy limee yi araam saaba yi ne kon yan moo dagan mu ne yi dagan moom duma leen jox list la ko lakum tayibaatu rek laay wax la ko lakum tayibaatu waaye duma leen jox list ndax fii bu mu defee liste euh, boo moytuwul alxuraan kenn du ko mokkal ndax list ba nar naa gudd te listub màkk du bokk ak listub senegaal déedéet ndax listu lekki màkk ya bokkut ak listub lekki màkk lekki Sénégal moo tax sunu borom subaanu wa kenn du moom waaw mu def list boo xam bi màkk ak Sénégal ñoom ñépp noo ci bokk nekk ak xatar nee na kon démb bu ñu jeexal la mu ne waskur smallahi alayhi wa taqullah ragal leen yàlla nag ndax fekk yàlla nee na xaj bi bu la jàppalee lekkal bu jàppalee boppam bàyyee ko ko nga ñëw fekk mu jàppal boppam namm yàpp tax nga jël ko sunu borom nee na ku ragal yàlla du ko def ku ragal yàlla du ko def wéy rëbb yi daan nañ ko ci def tabarakallah di ko jàngale jàngale ma solo ndax inna la serewul xisaab ku jar ragal ndax dafa gaaw ni muy régler mbir yi waaye sunu borom régleel ca euh, móodu móodu yi suñu borom regleel ca móodu móodu yi problème yi ñu am ca foofa ñu nekk ca Brésil ca Espagne ca Belgique ca Italie ca almaañ suñu boroom regleel ko móodu móodu yi des sénégalais yoo xam ne senegal lañ jóge dem foofa ak seen diine bëgg caa nekk ak seen njaboot nekk ci ak seeni soxna ak yépp di góor góorlu nga dem ci benn marché walla benn euh, mercato <laughs> fekk ñu bind ci kees xalaal bind ca gene yeneen kees ya euh, binduñ ca xalaal ne yàpp yi moo dagan ndax niñ ko rendee yàpp yi nag daganut ndax niñ ko rendee te yépp nekk xarak ak nag ak bëy ak giléem ak ganaar sunu borom bi saaba yi laajee laaj bi mu mu mu indiwaale ci laaju móodu móodu yi ne leen waaw ne ndeysaan wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum ñu ne waaw mu ne wa taamukum xillun lahum mu jeex tàkk al yawma uhilla lakum at-tayyibaatu ñu ne waaw mu ne wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum ren ndig ñi nga xam ne amoon nañ téere démb ren ndig ñi nga xam ne amoon nañ téere léegi nag boo yóbbee sa xel naan waaye léegi amatuñu téere wala léegi dematuñu église wala léegi nangam nangam loola sa mbir la suñu borom xamoon na lépp teewul mu ne utul kitaab ba la leen tudde ahlul kitaab rek la leen tudde waaw ba ba adduna tukki nag noonu la ñuy tudd jeex na tàkk wa taamukum xillul lahum yéen it seen ren di dagan na ci ñoom li feeg lañu rendi xar la mbaa nag mbaa bëy wala ngeen rendi ko yéen ndeysaan loolu sunu borom daal di ko ci tontuwaale tontuwaale ci it jigéen ja nga xam ne ca ñoom la bokk te nga bëgg koo takk jigéen ja nga xam ne ca ñoom la bokk ahlul kitaab minal yahudi awi nasara sunu borom tontuwaale ca wax ne ñooñit Euh, tabarkal wal muhsanaatu min la seen utul kitaaba ñoom it dagan nañu waaw nga takk leen dagan na waaw ndax yàlla laaj bi gaa ñi laajaale wuñ ko waaye ramassé na ko boole kook ñoom defal leen ci commentaire tabarkala ba mu leer nañ jëlla jëlal wa azza kamalu mënunu laa fay jëlla jëlal wa azza kamalu jéemunu ko sax nag ndax wax ko wax ju yàqu la waaye yaa baax yàlla tabarkal la mosoo wor kenn waaw kuy siir yi rekk ci yow la yem yaay arrahuufu yaay arrahim tabarkal la yaay almaliku yaay alquddus yaay assalaamu yow yàlla yaay almuminu almuhayminu yaay alaziz yaay aljabbaaru yaay almutakabbiru subhaanallah yaay alxaaliqu albaari almusawir loolu asmaul husna laka al asmaul husna <laughs> baax na bis bu ma la mënee tagg rek tabarkalla dinaa la tagg yow sunu borom maa ngi ci njàng mi waaw dekk yem ca laa ut ni aleyka sanaan kama asnayta ala nafsika ihsan yi ci laaj yooyu bi fi yonent bi nekkee asahaba alkiram ridwanullahi taala alim ajmaina wër ko di ñu laajal di leen laajaaleel xam ngeen ne laaj yii day tabarkalla di di ñu laajal di leen laajaaleel tabarkalla dañ ko laajal tey yasalunaka ñi ngi lay laaj ani saati bis pinc ayyaana mursaaha kañ la bis penc ban dat la kañ la addunay tukki loolu lañ ko laaj yàlla nag musuñu koo laaj bis bii maanaam laaj ko yonent bi mu ne ko nee leen dat sàngam la mukk waaw ndax loolu domaine la domaine nu yàlla la domaine réserve lañ ko wax professeur yaakaar naa ne waaw domaine la maanaam mbirum yàlla kenn du ci dugg waaw domaine privé sunu borom la kenn du ci dugg xajalu ci kenn ma tax kenn xamul kañ la xul nee leen innama ilmuha inda rabbi ne leen xam-xam bi yàllaa ko yor du leen ko jox laa yujalliha li waxtiha illa hu dat bi muy am kañ la moom rek a ko xam kañ la àdduna yi périmé ba jeex takk àdduna nag mi ngi périmé ngeen ko xamee waaw dat bi ñu ko defaroon moom àdduna am na dat boo xam ne bi ci lay périmé yàqu dat bu àdduna nag mi ngi tàmbalee yàqu waaw ndeysaan la la la la politicien ba waxoon maam Cheikh Al Hadji Malick dañoo bëgg nga ñaanal ñu lu ngeen doy ñaan gi dañoo bëgg defar réew mi mu ne ah, waaw jar ngeen a yërëm jar ngeen a ñaanal ndax ki defaroon àdduna def ne da koy yàq te tàmbali na ko waaw kon nag laa jël li waqtiha illa hu kañ la bis pénc dat bi kañ la moom rek a ko xam boo ñëwee ci yi ñuy consommer ci àdduna si léeg-léeg nga gis ab waat ñu wax la ne mi ngi périmé euh, deux euh, décembre deux mille dix sept wala décembre deux mille dix huit wala février wala nangam bind ko ca pot ba noo koy nag su jëndee pot lu xoolool lu mu ci doon doy jënd rek tabarkàlla yóbbu kër ga togg lekk moo ko njabootam ëpp naa def ku jënd dara dangay xool date bi est-ce que périmé na wala déet su dee waaw bul ko jënd ndax boo ko jëndee tubaab bi nee na lim defoon dafa nëb léegi baaxatul te lekk lu nëb baaxul ci butit ndax biir lu ci dugg te nëb mën naa nëbal biir wax la ko tey waaw moo tax léeg-léeg nga dégg ñu ne jàpp nañ ci nàngam ba tuuri ko sànni mat na nangam ci xaalis ki koy jaay nag moom bëggul wér-gu-yaramu nit ki moom xaalis la bëgg ndeysaan moo tax lu lu daw yaram la nag lu daw yaram la maanaam nit koo xam ne mën nga am dara jaay ko nit mu consommer ko loolu nga xam ne moom nga ko jox dana ko gaañ tey wala fii ak quatre mois wala fii ak nàngam yow nag nga am ci xaalis trois mille cinq cent walla mille cinq cent affaire bu daw yaram léeg-léeg ceeb la ko nit ñiy def ceeb léeg-léeg ay pot tamaate ak ay yu kenn xamul tabarkal la léeg-léeg ji sax nit ñi def ko yor région ju nëpp jaxasi ko ju nëbbut nubaar tabarkal la léeg-léeg ñi jaay fur bi def ko waaw nga nga romb leen ñor ak mbuus jaay la ko nga dem ba sa kër di xolli di di ñam di wacc ba mu des benn mbaa ñaara cay neex baax na ala xaal yàlla nee na dat bi nga xam ni ci la àdduna yu tukki du ko wax kenn saqulat fi samawati wal ardi <laughs> asamaan ak suuf ñépp a ko bëgg a xam waaye nag saqulat fi samawati wal ard ñi ci asamaan ñi ngi naan kañ la ñi ci suuf ñi ngi naan kañ la ñépp ko bëgg a xam waaye laa taatikum illa baxta yàlla mu ne yërëmane ne gima yërëm tax na daf leen di bett rek abo ah waaw waaw daf leen di bett rek lay <laughs> ndey sax benn ndaw kundaa <laughs> benn ndaw kundaa lisaan sunu sunu sëriñ ba sunu xarit ba xaaj abdul aziz al amin rahmatullahi alayhi wa radi mu ne ma amel naa la amel naa la deux mille deux mille francs waaw mi ngi nii ma ne ko lu xew mu ne ma li ngay wax ndaw kundaay tubaarkàlla ma neexale la ko <laughs> ko ne ko kon de yokk waaye daal ndaw kundaay bi maa ci sunu borom daf ne daf noo yërëm moo tax du wax bis peñ ci kañ la dafa am ndaw kundaa bu nekkoon cib dëkk waaw cib dëkk <laughs> côté ndukkumaan ndaw kundaa bi yàpp xar muñ ko reyal du am vingt quatre mu ne ko tépp ndaw kundaa bi xar muñ ko reyal du am vingt quatre heures mun na ko tépp tabarkàlla ba yëf yi nag ëpp biir bi jóg <laughs> eh, mu xaw koo def tawat ñu yóbbu ko hôpital fekk fa Moussa Gaye Albert Royer moom ñoom ndey faatu ñu opéré góor gi ndaw kundaa bi bàyyi mu dem ñibbi ca déwén mu del même feebar bi ndax lekk gu bari gi kaar mu del ñu opéré waat ko mu dem ñibbi ca sa mu del siwaat professeur Moussa Gaye daal di soxna Ndeye faatu jàll ne ko <laughs> nañu waxtaan mu ne ko acca mu ne ko damay bind leetar góor gi ne ko bi yoon kenn la opéré ndax euh, mois de juin ngay faatu ñu daal koy wax góor gi bindal ko benn lettre bu xonq tàmp ne ko daal ko ko jox cee te te ñu lebal koy bagaasam ne ko ren bi yoon kenn du la opéré demal nga ñibbi ndax li la dese bëreetul ndeysaan góor gi dugg ci oto bi yim daan romb ci mbedd ci tali bi di ko jënd buy ñibbi mbuus si mandarin yeeg orange yeeg yooyu bi yoon jëndul dara toog rek di xalaat nag mois de juin ndeysaan góor gi àgg ca kër ga ñu ne ko ñu defar xar mi wàjj ko ba mu baax indi ko mu ne mukk nañ ko defal nañ ko defal laax bu woyof bu ñuy wax ruy seet góor gi commencé régime waaw bu ndekki jotee mën nañ ko indil sexaw nañ ko indil sexaw commencé régime ndeysaan bu reer jotee mu ne nañ indi fonde delluwaat ci consommé local moom góor gi doonte xar consommé local la waaye delluwaat ci consommé localu foofu laa bëgg wax góor gi ne ca ni ci mois de juin mu jeex takk yooyu bay bëgg a dee waaw waaye mois de juin jot na faatuwut mu ne tubaab lu mu la dëgg la xëy na kon juillet août laa jëm mu dem ba août faatuwut mook ñoom mook ñoom ba décembre bi mu ñëwoon dellusi si te faatuwul mu porte plainte nag professeur Moussa Gueye <laughs> ak soxna Ndeye Fatou Diallo mu porte leen plainte waaw mu leen porte plainte maître Alas Diouf nekk seen avocat ñoom docteur yi <laughs> góor gi ñëw taxaw ci baar bi daal di wax li mu wax kii moo ne moon da ngay faatu mois de juin mi ngi nii faatuwuma nangam nangam porter plainte waaw ah, maître El Hadji di taxaw ci baar bi ne ko ñoo yey <laughs> ñoo yey ti mas beaucoup et trop <laughs> waaw ñu ne Moussa Gueye layal Moussa ne opéré naa ko ñaar yoon bu ñettoon mu faatu nii rek laa mënoon def ñoo ko foo ko jëlee mu ne alxuraan daa wax ne laa yujalliha li waxtiha illa hu saq illa hu saqulat fi samawati l ardi la taatikum illa baxta loolu laa jëfandikoo ba def ko nii góor gi ndeysaan daal di jóg daal di kott Moussa Gaye ne ko ah boo ma ko xamoon nii de duma la porter plainte monsieur le procureur naa plainte bi ñu dem ñibbi waaye xissa bi li nga ciy jànge mooy bu nu yàlla ni woon dat sàngam ngeen di génn àdduna ku jege li si def ni góor gi ay eh, bu yàlla ni woon dat sàngam ngeen fii jóge kon ku sab dat jege si rek nga def nu góor gi moo tax di bàyyi ñàgg rek ñu ne diw gaañu ne ñëpp ni diw man rek comme ça ndeysaan danañuy dal danañuy dal léeg-léeg ndeysaan diw faatu na ñëpp téye seen gémmiñ ni diw man waaw tabarkàlla <laughs> kenn mësu koo gis rek waaw la ma journaliste ba ne woon dégg naa dangaa bokk ci ñi ñi ñi faatu ca ca màkk ca aj ga ne ko ah laaj bi yàqu na di <clears throat> laaj bi kat yàqu na noo ngi nii jàkkaar la maa yo nga naan ma dégg naa da nga caa bokk waaw <laughs> kenn mësu koo gis rek tabarkal faxas këpp <clears throat> kon nee na ko yasalunaka ka annaka xafiyun anha guddeeg bëccëg ñu ngi la koy laaj mel ni da nga cee xam dara guddeeg bëccëg kañ la bis kañ la bis mu laaj boobu lu mu yokk ak lu muy wàññi qul innama ilmuha inda allah xam-xamu bis pénc kañ la yàllaa ko mën a dékku doomu aadama mënu koo dékku walakin akthara naasi laa ya'lamuuna ñi ëpp dañoo xamut ñi ëpp dañoo xamut waaye alayhi salaatu salaam saxaaba yi laaj koy laaj nag keroog bi sunu borom tontool yi ñu ko xam naa kon xamuloo kañ la waaye man nga ñoo wan màndarga yoo xam ne buñ ko gisee xam ne soreetul mu ne loolu de moom mën naa ko loolu moom mën naa ko mën naa leen wan màndarga yoo xam ne bu ngeen ci àgg ngeen xam yéen a ngi ci aaxiru zaman addunaa ngi bëgg tukki loolu moom mën naa ko ñu ne ko acca ñu ne ko acca mu ne leen bis bu ngeen demee ba jigéen di jur doom def doom jab chef ci kër gi ragal ko takk leen seeni bagaas an talidal mar'atu rabbataha ba ngeen demee ba jigéen am jànq bu toll ni moom jànq ba du faste xànc xanaa bu xëyee bootub saagam wuti fa jàng ji di jàng lu dul mokk mukk tubaarkal di jàng lu dul mokk mukk waaw buy dem lu ne ci kër gi ñu jox ko ci weccet bu demee jënde ko mburu waaw tubaarkal la cinquante cinquante wala wala walla nee na bu ngeen àggee foofa takk leen seen i bagage ci xam ne àddinaa ngi bëgg a tukki waaw taa bu jigéen jureekum ragal luy loolu mooy parents yi bu ñu demee ba ragal seen doom yi àdduna ngi bëgg a tukki te àdduna fi nekkoon àgg na foofu ndax am na nit ñoo xam ne ñi mu ñor seen doom dara rawatina bu dee doom ji tàmbali liggéey waaw loola woykat ba doon wax naan ba mu daan liggéey dañu maa fonkoon waaw mu ne lëggéeyatuma lu fi réer ñu jiiñ ma mën na ko ndeysaan yàlla na yàlla yërëm waaw <laughs> coon ca ka ko doon wax waaw mu ne ba mu daan liggéey dañ koo fonkoon liggéeyatu lu ci réer ci kër gi ñu jiiñ ko ko wax na dëgg de yonent bi naan buñ tollee foofu àddunaa ngi bëgg tukki <clears throat> nee na <clears throat> bis boo gisee ña dëkkoon ca kaw ga ñëw ci taax yi am fii étage àddunaa ngi bëgg tukki bis boo gisee ña dëkkoon ca kaw ga di doxee di doxee tànku neen di sàmm ay xar ñu ñëw ci capital bi am ay étage ni ñëpp takkal say bagage <laughs> takkal de mbokk ñaar yi yonent bi wax bu ci nekk def naa teg ngeen ci seen bët waaw dëkk ca kaw ga ba mu yàgg nga ñëw ci taax yi am fii étage xaadim sàmm <clears throat> la boo ñëwee dakaar fekk kër gi ku moom kër gi R plus ñu ne xaadim sàmb sunu borom nee na takkal say bagage <laughs> waaw waxoon naa leen ñëwub dakaar mu xaadim sàmb tabarkalla événement boobu bu fekkoon jamono ñu am télévision di ko filmer wala ñu def ko ci rajo la ba léegi nit ñaa ngi koy teg waaw booba nag tuddutoon xaadim sàmb sang la tuddoon sang waaw sang la tuddoon noonu la ko bàyyam daan wooye ndeysaan góor gi Aliou waaw sanga ngay dem Dakar mu ñëw kalaame kook ndeysaan eh, bàyyi maalum jaw tabarkal kalaame kook góor ga géey waaw papa ñoom xaali géey tabarkal jóge fa dem kalaame kook bàyyi bàyyi eh, nu ñu koy tuddee tiwaay bàyyi ngañ jóge fu ñëw kalaame ko bàyyi Moodu Ami daal di koy kalaame ak bàyyi du Jama waaw ñépp war Xaadim sàmm di ko yedd ndax bu mu ñëw Dakar <laughs> si tit tit tit mu ne moo ko ñëw rek yolli ku ñëw ndey sant barkal la waaye daal <laughs> yonent bi nee na boo gisee ñu dëkkoon ca kaw ga ñëw ci at ci ci taax yi am fi ay étage mun naa ah, mën a takkaleen seen bagage àddunaa ngi bëgg tukki àgg nañ ci bu yàgg kon alayhi salaatu salaam laaj bii nga xam ne moom lañ ko laaj bii laaj moom tontoom nii rek lay mën a demee laaj yi weesu yëpp nee leen nangam deux plus deux égale la ko tontoo waaye laaj bii moom dégg nga lim jox rek qul innama ilmuha inda rabbi waaw ñu baamtuwaat laaj mu ne qul innama ilmuha inda allah waaw walakin aksara naasi laa yaalamuun kon nag dat bi àddunay tukki sunu borom du ko wax ndax su ko waxee du nu jig kon nu bàyyi lekk bàyyi naan ndax ku sab dat jege si su babaa say mbokk commencé ñëw sa kër waaw commencé laa wër di di di di la taxaw loolu ëpp naa def day bàyyi rek waaw laa taatikum illa baxta day bette rek ndeysaan moo tax nit ñi ñaan yàlla na nu fekk ci li neex borom bi rek waaw looloo jara ñaan yàlla na nu fekk ci li neex sunu borom waaw ndax day bette ndeysaan day bette de tabarakallah ñi dem ñëpp noonu lay def da ngay jékki-jékki rek dégg ko yenn saa yi doo dégg feebar yenn saa yi doo dégg feebar waaye bu génnee àdduna rek tabarkal la mu siiw kon àdduna bés penc ka lay tukki ñeen ñi daan daan wax ne yonent bi du tëdd ñaari junni at ñeenaan du tëdd nangam loolu lépp suñu borom daal moom lim tontu leer na nañ yasalunaka ani saati ayyaana mursaaha qul innamaa ilmuhaa inda rabbi moo tax dangay mel ni rek kuy dugg dakaar dem dikk luy loolu mooy ŋàbbal sa paas na doon weccet taxawal ca arrêt ba muy jaar bu la jubee yëkkatil sa loxo boo yéegee fay waaw àdduna noonu la da ngay waaj da waaj ginnaaw dalay bett waaw malaaka mi rek ni la kay wuyu kaay wuyu ndeysaan jërë ngeen jëf ak si ñu fa war a jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncalan ko ci wolof ñu ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi nga xam ne mooy sànni wax ci jaww ji ba waa ngaay mexe mën koo dégg yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara te soxla suñu sponsor yi T3S